وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أي لا إله إلا Ahí شيخ محمد الماعي ابراهيم اليوس بقرير كيشنا اليوم اليوم قبل ان اديان اليوم جمعك تلقى ديال جبت لك هي بلان ما نقول Başkaları yaradı bu. Onları acıya koymuyor. Çünkü ما كوي إن أنا الشعب معي ويدخل في بدن أبوته وما ذلك على الله بعزيز وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي سنتي الله بباب سنتي الله مولم صبي فن مرنك تمن جابنا لين نك نب صبي دولو لين di sant yalla ci tew ak cheikh mohammed إبراهيم أنيس الخليفة العام للفيضة التجانية وما أدراك ما هي الفيضة التجانية سريبي نينلي تتقل تتقل بوقمنا نينكوي صف في تتقل بوقمنا شيخ محمد الأمين موم لاني اوبيلي تاتغالام ديلو نا الله bañ xam ne arab stade malab lañ koy wax waaye ndax nu nahnu naa huna lillahi bi mu delloo ñëpp ci yàlla delloo boo xam ne doy nañu loolu ñu jël ko yóbbal ba déwén sëriñ bi ñëw bii mu ñëw ci Dakar maanaa yu bëri lay man de sedduma kañlaga ja kammu fanan dakar ci benn fan talibe yi o ko mu ñëw lu tax ida duita fa ijib buñ la ooyee nga uyu owuñ ko ci lenn lu may li nga xam ne ci loolu rek lañ ko fekkoon cheikh ibrahim radiallahu anhu ba mu ziyaare ba mu wéyee yonent bi ci xasidaam boobu nga xam ne ci Paris la ko wéyee ba àgg ci audu ila shughli wa shughliya shughluhu maa ngi dellu delluwaat ci sama liggéey waaye sama liggéey mooy liggéeyam bi sëriñ bi ñëw na tey ànd ak mbooleem yi ay mbokkam mbooleem yi dogi ci resi Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu loolu mooy Baye moo jagleel Dakaaru ngan te Baye am na ngan gum ñëwoon Dakar du wax lu jiitu li may wax waaye Baye Mahmoud Diop la bindoon leetar bi ne ko maa ngi dem Dakar di yanaalu min nii saadata yi maa ngi dem Dakar du daara nag lu may rek ñi amee ci man texe àddina ak texe àllaaxira ñii Baye moo leen yaral boppam ردل لين يون امنا قصيده ولا اردو زبو خمنه محمد الامين لك كوماسي فقراء الكتب مونكو جاخله نا تي مودغ نلين فلتعلموا ولتعملوا وعلموا والتزموا لزوم ما لا يلزموا اذا تنالوا كل ما تشاءوا دينا او الدنيا كما يشاء بمتدي محمد الامين بابا wax tudd cheikh Mahi tudd cheikh al Ahadi tudd cheikh Naziru tudd cheikh Aqibu ne nag na ngeen jàng na ngeen jàng na ngeen jëfee li ngeen jàng na ngeen jàngalee na ngeen takkoo ba takkoo lu warut loolu moo waral sëriñ bi nga Dakar oo ko bu gën a ndaw daf koy oo mu dem uyu ji ko parce que na ngeen takkoo ba takkoo lu warut googu bàyyi waxoon leen ñoom xam nañ lan lay boo boobu xamul nag da nga wax ak moom nga foog ne yow yow rek yaa nekk ci yoon fekk daf naa bu gëmal ne man gëm naa ne yow ci yoon nga nekk loolu daf lay dimbale pour nga tegu yoon moo tax kenn du leen wax tey kan mooy Cheikh Mouhamadul Mahi ndax xam ngeen mooy kan Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass loolu waaye tey moom mooy xalifa ci saaxibil faydati koo xam ne ba mu juddoo jàng alquran wëttu ko wëttu bu rafet ba muy mottali alquran keroog boobu Cheikh Abdoul Aziz Dabakh fekkee na ko Seydi Aliou Cissé bind ci arab yu rafet yuy tegte la rafet ak jotaay bi ba léegi nii wéerul àlluwaan ba tey ji wéerul àlluwaan jàng na jàngale mooy liggéeyam xamale mooy liggéeyam wane yoon mooy liggéeyam encouragé nit ñi ci lu baax mooy liggéeyam xajoon na ñëpp ndax dafa jàpp na ñëpp ak njabootam lañ loolu nag moo tax mën ngaa jàdd yoon sax ñëw ci moom nga foog ne daf laa encouragé ci jàdd yoon fekk daf laa bugg a gëmal na ne man mbaax rek laa gën ci yow boobaa dangay dellu sax ci mbaax boobu nga xam ne moom la gën ci yow gis naa leetar boo xam ne moo ko bindoon bàyyi boobu ngi taaxera ne bàyyi man damaa jël sama bopp def sama bopp wax lil ilm maanaam damaa jagleel sama bopp xam-xam loolu yàgg na lool boobu jagleel sa bopp xam-xam yombut waaye ba tey jii nii defut benn jéegu boo xam ne nii dana uuteeg loolu ndax waxtu wu nekk mu ngi te seet téere bu bees boo xam ne daf cee war a yokkoo waaye mu ngi seet téere bu bees boo xam ne bala cee ndawee àgg mu xam la ca nekk buy si wax ko moytu leen leen loolu kon kooku moom lañ am tey jii comme gan duñ ko présenté dañ koy tatagal ñaanal ko yàlla tatagal ay ganam yi nga xam ne doy la leen tatagal ñu ne Cheikh Mouhamadul Amin nga xam ne mooy mumasilil hadrati fii Dakar bu fi xayri Dakar sax moo jiitee ngan googu teeru ko démb dama ne ko karima sajaaya waasi aljuudi ma tara li dayfi karimin qad ajaada maqaala ma ne ko baaba tey loolu laa lay wax ba tey ñu ngi waxaat loolu waaye ñu ngi bégal waa Dakar yépp buñ waxee ñu ngi bégal dakaar mooy ne ñu ngi bégal euh, mbooleem réew mi ñu ngi bëggal mbooleem Sénégal ndax ñëwuñ fii pour séddoo fi mbir moo xam ne dañ koy jël ñun bàyyi waa Dakar ndax li ñuy def ci Dakar tey ñun si këri àjjuma du xew-xew ci ñun bët bu set sikar du xew ci ñun bët bu set la tudd yàlla du xew ci ñun bët bu set la gane la gan du xew ci ñun bët bu set la waaye sëriñ bi ñëw fii ba Dakar taalibe yëpp dajee mu mel ni taalibe bàyyi dañoo bëgg a wax ne ñun fiir nañ gis ñu gis Nigeria di ko def fiir nañ li ñu gis euh, dëkk yi ci di ko def ci bàyyi kon nag ñun tim duñ nangu bàyyi kenn jël ko bàyyi ni dafa mel ni saanu xaali mboolem taalibe yi loolu la bëgg a wax ñu ngi nuyu première dame Marème Faye mi nga xam ne euh, toogaayam ci dafay tegtele rek toogaay euh, président ndax moom la neex te li ko neex moo ko neex kon bu teewee fii ñu ngi koy gërëm bu baax rawatina bi ñu déggee li Barham wax ñi ngi gërëm suñ euh, xarit monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr waaye di gësa gërëm maire bi Moussa Faye Moussa Sy ak mbooleem ñi nga xam ne tim Euh, Barham Seck tudd na leen gërëm na leen ñun duñ toog di leen gërëm ndax Barham Seck tudd na leen sëriñ bi dégg na ko ñaan na ay jaam yaa fi ñoo xam ne seen amin te amin yi ñëpp ñaan la loolu ñooñu duñ leen gërëm waaye dañ leen di dañ leen di ndokkeel dañ leen di ndokkeel jotaay bu mel nii yàlla may leen ñi teewee ko ñi ngi gërëm ci Modou Ndiaye euh, rahma comme ni ko ñëpp waxee ci taxawaayam di gërëm euh, directeur Sénélec ak ñëpp ñi nga xam ne def nañ ci di wax ne sëriñ bi euh, taalibe yaa ngi nii euh, àddina yëpp a ngi nii addinaa ngi déglu te ñëpp bëgg a rek moo tax ñu ànd ak bàyyi bëgg yàlla rek moo tax ñu ànd ak bàyyi namu yàlla moo tax ñu ànd ak bàyyi bëgg a teytu xet gu neex gi nga xam ne moo ko xeeñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ku ànd ak moom mu kañ la ba mu wax ne talaqaahu min nii kullu ruuxin mujarradin safa waqtuhum wal amru gayru mariji wa man yataallaq bil amini mahabbatan yenal kulla ma yahwa bi shammi ariji bàyyi dam ne gëtt gu neex gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xeeñ bépp bépp rooxo boo xam ne rooxo bu sell la rek dana jël gët googu mu tukkee ci man nee na képp koo xam ne aju nga ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga jot sa mboolem càkkuteef ci xeetu man sama xet muy cheikh ibrahim radiallahu ay xet yi cheikh ibrahim ñoo ñëw teew fii képp koo xam ne xeetu nga ko rek danga nga jot sa mbëggeel ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaan di wax amin ci ñaan yi nga xam ne sëriñ baa ngi koy ñaan si di ñaan ñi ngi jëm ci élection yi nga xam ne nii xam nañ ne ah, bu jotee ñu ñu bëri duñ ak seen sago waaye ñu ngi dénk taalibe yi di leen wax ñoom ñëpp nañ bàyyi seen xel ne Sénégal suñ Sénégal la ñoo ko moom ñi koy xaccoo ñoo ko moom ku ko ci jot ab Sénégal nga Sénégal ngay liggéey nga bàyyi sa xel ci loolu ba nga xam ne dañ sàmmanteeg loolu ba ëllëg ñi jëm ci Sénégal boo xam ne nii moom rek la ñu nawee mooy Sénégal boo xam ne dafa ànd ak jàmm dafa ànd ak bëggante dafa ànd ak développement ñu ngi ndokkeel di tatagal tim Cheikh al imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé mu ngi nii di di agsi loolu yëpp rek pour feddali li nga xam ne moom lañ doon wax ne sëriñ bi ba mu jugee Medina yëpp ñoo jug ànd ak moom ay rakam jug nañ ànd ak moom al imam jug na ànd ak moom ay doomi baay taxam jug nañ ak moom doomi maam Serigne Bay jug nañ ànd ak moom doomi euh, maam alxaaj Mouhamed Zeynabu jug nañ ànd ak moom doomi maam Mahmoud jug nañ ànd ak moom kon Sénégal euh, Dakar dafa mel ni Médina yëpp ñoo ñëw Dakar pour mooy ne am nañ Dakar ay tool tool yi mooy taalibe yi mooy soppe yi mooy muqaddam yi ñoom ñëpp nga xam ne ñu ngi ci terrain bi di liggéey di jéem a góorgóorlu di wane yoon di bëggloo nit ñi bàyyi tey nag kilifa yi ñoo ñëw pour ziare si ñooñu pour encourager leen ci lépp lu baax loo xam ne ñu ngi ci nekk gàgganti leen wan leen yoon yokku leen yaakaar ci seen bopp xamal leen tim responsabilité bi mag bi nga xam ne nii ci lañ nekk bañ gën a góor góorgóorlu jëm ci kanam ñi ngi ñaan sëriñ bi mu ñaanal Sénégal yëpp ñaanal askan wi yëpp ñaanal euh, président yàlla teg ko ci yoon yi nga xam ne nii moom la Sénégal diggante ci moom ba nga xam ne nii dana àggale Sénégal ci li nga xam ne moom lañ bëgg ñu ngi ñaanal mbooleem Sénégal yi ci ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu pour jëmale Sénégal ci kanam te yàlla nañu ci yàlla dimbale bañ àggale Sénégal ci fi nga xam ne àddina yëpp moom lañ nawee Sénégal mooy Sénégal bu am démocratie bu ànd ak jàmm bu ànd ak xam-xam bu ànd ak bëggante bu ànd ak dimbalante Sénégal bu am tolérance boo xam ne nii bëgg nga sa bopp bëgg nga sa mbokk nangul nga sa bopp nangul nga sa mbokk pour sa mbokk nangul la salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu buggu ñëw guddal dañoo mënu toon a ñàkk wax rek waaye bi Cheikh Euh, euh, kàddu yi dafa réeroon ci man ndax xaal bi nga xam ne ci la yóbbu mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu